ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay deme lépp loo xam ne jóge na ci làmb ji dinañ daal di toog fii daal di ko faram-fàccee waxtaanee ko baaxee leen ko waaye nag à fois rek ma ci ànd ki nga xam ne moo di Babacar l'incontournable. <laughs> soxna Ami sa tur boobu daal moom xam naa ne. danaa la ko tuddee te danaa ko nangu non danaa ko nangu amul benn <laughs> ay taalibe rek di ay dongo daara hmm. ñu ngi suivre di la ñaanal jàmm di ko sàqu si ñoom mhm. ñoom ñëpp ah fu ñu mën a nekk parce que encore une fois rek comme lu may wax rek ami mhm. ñi ñuy suivre moom amuñu seen fay waaw vraiment moo tax saa su nekk maa ngi leen di bëggee mhm. mais itam du nuyu nga xam ne moom mooy suñu daam jond nga xam ne tey moom moom ma génne fii entrepreneur bu mag bi doomu ndeyu Papa Guèye bu ministère des finances suñu daam man ma génn di fàtte ah, li nga sol jot na de ah eh, eh, waaw baax na ba <laughs> dara na aussi de jot na de <laughs> jot na de. jot na de. baax na bu baaxee ñu dem seetaan li nga xam ne moo di revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 30 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fësal bokk na ci loo xam ne daal démb daa mel ni ki moo amoon fa nga xam ne nii moom moo doon ca CNC ba maanaam daal lu jëm ci wàllum régulariser combat yi nga xam ne nag promoteur yi tëgg na ko am na ci combat boo xam ne nag ñépp a ngi doon xaar date ba kañ lañ koy bëre est-ce que dinañ ko bëre fu nu koy bëree léegi nag leer na nañ combat ba mu léegi régularisé nañ ko maanaam jàppal ko ab date muy combat royal ba war a dox ci diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé sa lu ndaw combat ba yëgli ka biir sunu lamb daal xëy na ñu xamal ne daal soo bëggee dëgg-dëgg le 25 décembre daal le promoteur ba nag jàpp moom Luc Nicolaï kon booba combat léegi leer na nañ maanaam daal cadeau de Noël daal la Luc Nicolaï fa yéene jox ña nga xam ne ni ñoom ñoo di amateur yi lamb yi waaye du ca yem ñoom de ndax balaa ñu caa yegg le 15 mai am na ndaje moo xam ne nag ndaje mu rëy lay doon xam ne nii moom moo di ca ñaniŋ la ko fas yéenee def ak ñaari mbër ya yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy ñëw di nu wax lu mel ne ki ñoon ñeneen ñoo xam ne a mag la ñu tëgg muy waa Vox Arena ñoom daa mel ni bi dan Tyson 2 ak Franc ak ki nga xam ne moom mooy Mama Lamine Garga 2 ku doon xaar bëgg a xam date ba jàppal waa Vox Arena tamit régulariser nañ yooya làmb maanaam mu war a nekk le 9 juin daal lañu ñu fas tëgg booba lépp combat wala yooyu lay combat yeneen combat yoo xam ne ba tey régularisé nañ ko fa nga xam ne moom moo doon ca seen seba ka ko tëgg tamit di moo get jàppal lagros ama neex zarko ak Baye ma ñoon ak yeneen combat yoo xam ne daal maanaam sept grand combat yoo xam ne daal soo bëggee dégg dëgg ba tey moo get moo fa jaar loolu lépp le de août tamit lañ ko régulariser ca la fas am leneen loo xam ne ba tey wala beneen promoteur boo xam ne tamit ñëw na fa yéene wane boppam muy waareen Dakar DKR ñoom itam daal daa mel soo bëggee dégg dëgg régulariser nañ de la ñu tëgg nag bokk na ci marle ak ka nga xam ne nii moom moo di neeku réel bu mobile numéro 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di Bour Sine Sine booba combat tamit daal wala yooyu combat daal yëglikaay bi xam nañu daal ñooñu tamit le vingt le vingt cinq juillet daal la fas yéenee def boobu la combat wala booba la date ca la fas yéenee jàpp seen yoonay combat kenn koo xam ne tamit Ouzin production lañ koy wax moom tamit daal jël na la 14 août fas yéenee tëgg nag professeur Mané ak ka nga xam ne nii moom moo di. sa njàmbur yëglikaay bi di sunu làmb tey moo xëy tey daal dugal ñu ci la nga xam ne nii moom moo di dat yooyu mel ne que nag problème mu yooyu daal ak fi mu nekk nii na mu bëree ak na combat yee mu nar a juri jafe-jafe moo tax daal ñu ngay xalaat boo sàgg ne day stadium Iba Mar Diop des na ko ubbi laat waa làmb maanaam tamit ñen ñi di fa tëgg pour que ñëpp mën a tëgg gis ci seen bopp loolu yëglikaay bi di làmb moo xëy ñëw tey wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii wala ñoom promoteurs yi nga xam ne nag bu bëggee dégg-dégg ci ay kuréel lañu bokk olof a ko wax ay jàmmi waay yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey wax ko du samay wax soo bëggee dégg-dëgg jéy seen ak ñamu jiite muy les promoteurs authentiques moom maanaam daa mel ni fi mu nekk ni problème ba nga xam ne nii daal moom moo am ñoom ndey occasionné wu nañ ci am seen ay date jàpp ay dat waaye pa Abdou Fall moom ak ñamu jiiteel yëgle kaay bi de suñu làmb wax de ne na soo bëggee dégg dëgg ñoom ñooy grand père daaye ñoom daal ñoo ca ñàkke waaye boo bëggee dégg dëgg ba tey sunu làmb ak nuy xamal ne daal bu dee Gaston Mbengue la muy Luc ay wala Serigne Modou ñan soo bëggee dégg dëgg daal ñii moom ah li am ba des daal daa mel ni ñoom occasion ba daal ba mu présenté wo dañ koo sisir daal am seen ay date jàpp seen njàmbur toog la nu def yëg likaay ba moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki non mel ni ki daal fi mu nekk nii moom làmb ji jax na ba yegg ci lool leneen loo xam ne yëg likaay bi ñëw na ci moom ma nga xam ne nii moom moo di sunu làmb muy jeune amateur yi nga xam ne nag seen ndogu la nga xam ne ni daal moom la ñu fas yéenee def daal boo bëggee dëgg ci samedi ji nu jëm daal lañ ca fas yéenee def daal fàttali ko fi nekkoon daan dund làmb moo xam ay la ñu woon wala ñu nekkoon ay amateur te génn àddina maanaam daal wàccee kaamil ñu fas yéenee def daal ñoom lañ ko fas yéenee jagleel yéeneen leen ko ñaanal leen yàlla jéggal leen taxaral aljanna muy loo xam ne daal kon jàppal suba ji la nar a am leneen loo xam ne mu nga fa nga xam ne nii moom moo di ci record di beneenub yëglekaay record daal xëy na tamit day xamal nañu ne daal combat royal ba moom léegi leer na c'est officiel le 25 décembre daal la Luc Nicolaï fas yéenee tëgg booba combat mel ni ki nag démb moom soo bëggee dégg dëgg bañ koy régulariser biram ñi ngi ñëwul de dañ koy écarté ña ko def ñoo ñoo di waa CNG ba wala boog ka nga xam ne nii moom mooy Basiru Baabu ak kuréelam ka nga xam ne nag moom moo ñëw signé ci aw turam moom moo di assisé daal dem moo ñëw signé ngir ñu mën a régulariser combat Modou Lo ak Ama Baldé yëglikaay ba xëy na wax nu ko moom record ba tey record yemu ca xëy na ak defetam bu njëkk boo xam ne am na ko ci MMA yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci moom record leneen loo xam ne moom Equivox TV lan kay fekk mel ni ki Modou moom kombaam bañ ko régulariser daal teguñu ca saasu bëri wala waxtu yu bari mu daal di réagir daal di wax daal fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox ca kombaam ba nga xam ne régulariser nañ ko yemu ca wala bu nu continuer ba tey ca Equivox TV Eumeu Sène tamit mel ni ki dimb daal moo nekkoon ganu Equivox ci waxtaan woo xam ne yaatu woon na lool lool ñu séqoon ko moo xam Equivox TV la wala li ka ko seeti woon nag moom moo doon Souleymane Faye di waykat bu mag ba mel ni ki daal waxtaan wa mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox TV mu nekkoon waxtaan woo xam ne daal loo ci mën a dégg neexoon na trop fa nga xam ne nii moom moo doon ca lagros mel ni ki daal kon dem gomis soo bëggee dégg dégg ndogu ya kawe na waaye lu la waaye mën a wax mooy wax ja am na solo rawatina nag waaye Souleymane fay la bëgg naa képp koo xam ne ni yaa ngi suivre Equivox TV nga déglu wax ja ndax nag leçon ya bëri na ca lool lool lool gomis mu nekkoon nag li nga xam ne moo di revue des titres ñu daal di ñëw nag Babacar ci journal suñu làmb ci mhm. xëtam bu njëkk tey kañ fa gis rek moo di Ama Baldé ak Modou Lo mu mel nii rek seen combat régularisé nañ ko démb fële ca CNG mu mel nii la datu cinq décembre lañ fixe loolu. waaw cadeau de Noël lay doon de ah. cadeau de Noël moom la léegi Nicolas lay indi. <laughs> waaw muy loo xam ne ah, dañ naan alhamdulilah parce que lu tax ñu koy wax mooy combat bi presque mu taxawee léegi mat na ñaari mhm. mais bon amuñ si lu leer nañ lees mën a téye mhm. ci. ne date bi lañ bëree tey nag bu ñu doxee di dox di dox ba bés ñëw ñu ne régulariser nañ ko au niveau CNC. Mhm. muy ña côté ñaari mbër yi ak la le promoteur. Mhm. defe naa ne kon loolu ak cant la. Mhm. yaa ngi dégg euh, sant yàlla ñaan yàlla tamit date bi ko jàpp muy le 25 décembre. yàlla nañ ko fekkee te tal ko muy cadeau de Noël. Luc Nicolaï ku ne xam na ne promoteur bu mag la yàgg naa tëggle euh, grand rendez-vous bu mag yi si làmb bokk na ci promoteur yi koy jëmmal. kon tey bu ëndee lii pour le 25 décembre. defe naa ne cadeau de ama am solo la doon. yemu ca mu fas def ak ñoom ndaje mhm. fa nga xam ne moom mooy ca ñaning la 15 mai mhm. loolu tamit di loo xam ne kon ça veut dire que kon fi mu nekk nii daal la sëñ nga noon problème yaa ngay démarrer waaye daa mel ni kon ah problème yaa ngay commencé démarrer nag waaw incha ñoom itam combat ñoom it comme li may wax rek du waxuñu parce que ami dama bëgg euh, des fois du Babacar day wax ci Vox Arena wala Equivox parce que fi lay liggéey non mais man avant ma fee ñëw fekk nañu taxawal seen làmb yi dëgg te bi ma ko déggee dama ni ñi def lii xam nañ làmb wala boog ñi leen encadré xam nañ làmb ndax Mama Lamine ndax euh, Mama Lamine sax ko boo ko boolee Garga 2 loolu làmb da koo ëppul ci technicité ci bëre te technicien boo dem wax ko lii la lay wax danaan la Mama Lamine Garga 2 loolu beneen làmb la bokk na ci combat yi ñu jàpp ne ren saison ren bi moo ci war a dàq mhm. ñu ne dét na waaye ngeen di Tyson 2 ak Franc Tyson 2 mi nga xam ne daan ko moo gën a jafe mhm. ni ngay gis ni daan ko lu jafe la mhm. parce que day xeex day bëre te daa bëre bëre mbappat Franc nag ba tey ku ne gis na kenn du laajte Franc ndax tournoi simple yi gis nañ li mu def bu yàggul lool boo ko ëndee ñu ne dét na waaye nga teg ci ay xale ay alliance biram caatu ngéwél ah mustik noiro bàyyi ma ñoon junior ak fourrière <laughs> muy ay combat xale yoo xam ne ni sa waay non tournoi C5 boobu mhm. ah. ah, ak équipe bi mu àndal yëpp waaw maa ngi koy di nuyu sërëm boobu yàlla na ko yàlla <laughs> yëkkati mais fi ngeen génn nooy na trop mais di mhm. nuyu tamit kilifa moo kilifa gu a mhm. a <laughs> noonu lay demee buñ jógee foofu ki nga xam ne tamit moo di moo géej ni euh, diggante Lac Rose ama neex Zarko ak Baye Mandione le 22 août moom it euh, la jàpp. waaw mhm. moom itam bu ne nee. Euh, sept grand combat. G5 moom xam naa mu ñëw. G7 g moom tamit moo gét sa ah. mhm. moom itam li ñuy neex si ñëwam mooy fi mu ñëwee dafa baax. Mhm. et bi mu ñëwee tamit dafa gis ay mbër yoo xam ne ay jàmbaar lañu. def lu ne si làmb. ñu toog ay at bëreetuñu. yaa ngi dégg mhm. tey moo gét ñëw moom jël leen jox leen xaalis fas leen leen ne bëreloo mhm. kon moo gét loolu mu dugg mhm. xay na dama naan sa dugg ci ngir am xaalis loolu laa yaakaar mais xëy na ci dugg rek pour dimbali ay frère sénégalais dimbali réewam kon yàlla na si génn ak ndam kon defe naa tamit moom itam date boobu mu jàpp muy le 22 août wax dëgg yàlla nga indi ci sept grands combats lagros ama neex zarko bàyyi ma njoon ah sam waay ak yeneen combat yoo xam ne bu waaw kenn demul mu des de am moo gét forom dëkk bu num tudd kuy xalam de borom Las Vegas <laughs> noonu la man naw naa moo gét man am na solo du mën euh, ba tey rek journal bu mel ni tey nag ci mbirum date yi rek lañu ñëw euh, nekko réel ak Marley mobile 2 ak Boursine ñoom euh, le 25 juillet incha allah lañ jàpp date waaw fi mu ne nii kon daal fi mu ne ñu ngi joxe date yi date yi tamit ñëw tamit di ay wàcc bees ren ci làmb mhm. comme promoteur laa leen mën a tudde waa US parce que ay sénégalais lañu ndax fu Pape Sarr ne kenn du fa laajte ndax xam nañ làmb wala xamuñu ko muy waa DKR mm-hmm. ñoom bu ñëwee indi nekkuréel ak marle mm-hmm. ñoo déet ne waaye ñu rax ca mobilité ak Boursine mm-hmm. ah ñoom tamit fa ñu wax xesen na de. am na solo wallaay fa ñu wax xesen na waa <laughs> DKR kon ñoom tamit macha allah. Uh-huh. jàppal dat ba kon ami. Uh-huh. le 25 juillet. juillet ah lii macha allah yal na maanaam combat yëpp yal na yegg ak jàmm ñu fekkee lépp waaye. Uh-huh. ndax ren moom da nga gis ne lamb ji dana dana sàjj ren. dina neex torop billaay sàjj na sax dara xew waaw moo tax la ami loon na mu ami loon na mu neex naan sax mar da caa dàq. li la waykat bi doon wax lu ma lii lu koy fay waaw lu koy fay waaw la waal noonu lii lu koy fay <laughs> waaye xam naa lii la ñu doon fayee ji promoteurs yi yàlla seen jàmm yàgg amin bu jógee foofu nag ba tey ci problème wu date yi ak yenn combat yi nga xam ne dañ koy abandonné mu mel nii rek dañoo jëm nag ci ouverture li nga xam ne moo di euh, stade Iba Mar Diop stade Iba Mar Diop defe naa ne buñ ñu ko ubbilee waa Teewal làmb def nañ li ñu war a def parce que stade Iba Mar Diop daa nekk benn euh, lieu boo xam ne si làmb làmb pour man mënu ko ñàkk donte am nañ arène nationale ah, mais dafa am ay journée ak ay bis yoo xam ne mhm. mën nañ ko fa def mhm. yaa ngi dégg les grands rendez-vous ak yenn rendez-vous ko arène nationale mhm. kon defe naa tey bu ñuy am xalaatu ubbiwaat ko mhm. man de alhamdulilah laay wax parce que tamit dina am promoteur yu mu arrangé parce que promoteurs yi tollawuñu doole tollawuñu mhm. niveau ci wàllum koom-koom kon ku ci nekk rek war nañu xool yow nu ñu lay gérer pour nga mën a organiser sa bés tey bu date yi ñëwee taklantoo ñu am problème mu date defe naa bu ñu ubbee fa nga xam ne ne moom mooy stade Jomba tamit ami ah fa neex est-ce que mas moo Diop. kon neex na. waaw euh, bu ñu jógee foofu nag ci euh, obtention des dates aussi ak caution 2 millions yi nga xam ne waa CNG dañ ko tegoon. Mhm. mu yenn ci promoteurs yi mu mel ni dañoo xaw a féewaloo. waaw ak féewaloo mhm. noonu la ko sunu làmb waxee ah mhm. mais ci biir féewaloo ko dafa jàpp na xëy na bu dee ak ñu féewaloo gi am na ñoo xam ne ñu jëlewuñ ci maanaam ñoom dañ cee ñàkke daa jàpp ne mooy pa Abdou Falek ñi mu jiite ah. am na ñoo xam ne nag ci loolu moom profité nañ ci ut ay date muy jéy seen ak ña mu jiite muy les promoteurs authentiques mm-hmm. moo nekk tamit bu dee Gaston Mbengue la Luc Nicolaï ak sëñ Modou Niang tamit ñoom tamit loolu profité nañ ci mm. yaa ngi dégg mhm. a ah, comme na xam naa ne olof naan ayuwaay jàmmi waay rek waaw waaw mais loo ci a dégg rek ñoom ñi ñëpp muy Pape Abdou Fall mhm. ñoom Jéy ñoom Gasson ñoom ku ci nekk a mhm. li ñu a tëgg bu nga xam ne dinañ ci jële ndam parce que ñoom ñëpp dañu ñëw pour yokk Sénégal rek la parce que bu leen neexoon ku ci ne am nga ci loon nga téye fa say million nekk ci leneen voilà kon na leen seen c'est encadré ànd ak ministère des sports quoi pour que affaire yi mën a dox. am na solo. Mhm. Euh, bu ñu jógee foofu nag euh, ci euh, combat Ama Baldé ak Modou mu mel nii rek bañ koy signé démb ki nga xam ne moo di Biram Ñing dañ koo écarté woon ndax Assise moo signé. waaw loolu boo ko gisee. li ko titré en li tax mu wax ko mooy boo xoolee kuréel bi nga xam ne moom mooy kuréelu manaat c'était père ba bu jiito ko. Mhm. boo boo ci bokkee. Mhm. da ngay bokk ci kuréel boobu pour mën a signante ak ñoom. xam naa nag Biram Ñing da ci bokkul. moom moo tax mënut a signante kon ki fa bokk di As Cissé moom moo mën a signante ak ñoom te As euh, am na benn moment boo xam ne yoroon licence su Modou Lo di ko signal mhm. yaa ngi dégg Euh, ba ba xam naa ko looloo tax démb comme biram mënta ñëw ñu indi as mu signé ci place biram ñing mais loolu lépp sotti ci ak def ci la rek parce que muy biram ñing ak as ñoom ñëpp. Mhm. ñëpp ci ci maanaam ci Modou Lo la rek. waaw loolu lépp ci mhm. Modou Lo la. Mhm. am na solo euh, journal bi euh, nag seen tuuti dañoo xaw a mm, ko. waaw Kiril waaw Kiril kenn sin ko. yaa wax loolu. noonu la noonu lañ ko bindee de Kiril de lañu ñu def Kirisenko <laughs> waaw Bélarusse la xaw <laughs> waaw moom daal moo gagné ko am rëg-rëg xam naa ne par rapport ak ni mu ko gagné nag comme li ñu gis ci image yi maanaam sifflet am na dóor loxo dal loxo nag bu dalee fekk yow défendre retour sa bopp man nga am jafe-jafe xam naa rëg-rëg looloo tax mu jël ci ay jafe-jafe par rapport ak ko koor gi muy woor loolu lépp da ciy feeñ di ko encourager moom lu mënta xew rek mu ngi défendre couleur réew mi au niveau international te ku ne gis na ne MMA bi wane wu ci ñàkk fulla wane wu ci ñàkk fayda mu ngi lim ci war a def kon li nga xam ne moom la ñàkk démb yàlla na nekk leneen loo xam ne ëllëg dinañ amaat yeneen ndam yu dàq yi nga xam ne nii mooy fi mu maanaam lim jëm ci kanam parce que defe mhm. mhm. nañ ne niñ ko gañee tegul ci yoon quoi ndax loolu moom bu nekkoon suñu kon day am ndam parce que arbitre soufflé moom bu xasee am moom ci làmb Sénégal boo dóoree moom mooy loolu quoi dëgg am na solo euh, fële ci Equivox TV lu fa xewoon de mu mel ni seeti woon ngeen euh, Eumeu Sène ak euh, ki nga xam ne moo di Modou Lo. waaw Modou yàlla dogal na démb bi combat am taxawee yàlla def na dogal na ñu daje. Mhm. ah bi ñu daje laaj ko si combat bi taxawaayu combat ah, mhm. moom itam daal nee na loolu moom. amu ci lu mu kii moom athlète la boo xam ne dañ koo yónni rek moom ngemb rek mhm. war a toppatoo loolu toppatoo koy toppatoo moom mu ngi ci li mu war a ngi entraîné daal ne moom mu ngi ci entraînement am ñu am ndam moom itam mu ngi ci liggéeyam li ci des moom amu ci benn wax bu mu ciy yokk ka wàññi xam nga Modou kiy bagaasam rek waaw ma ko ci nuyu waale di nuyu tamit waa pro auto parce que foofu lañ ko fekk dem ci ñoom Ibulaay mhm. di bu baax a baax mais mu lay wan ne daal moo lay wan ne kon démb loolu gisante nañ ak moom bañ ci jógee tamit Eumeu Sène tamit wax dëgg yàlla dem dalal nañu fa nga xam ne moom moo doon ca Lacrosse ah ci teewaayu ki nga xam ne moo doon Souleymane Faye parce que moo ko doon seet si mhm. mu wooñu man ak Lamine pour ñu ñëw teewe ko ñu ci a jërëjëfal Landiang mhm. parce que lépp moom la parce que wax yàlla moom tamit moo ñu yombal lool parce que des fois euh, jot ci yenn mbër yi man na jafe mais des fois am ku am comparaison ku nekk moom koo xam ne du ko mhm. mettil te Landiang ci genre nit yooyu la mhm. vraiment su relation buur aayul yenn saa dag yaay waaw mais Landiang moom Landiang wuyoo wuyoo non non non Landiang moom nit ku baax <laughs> la nit la ku baax ku simple et puis tamit koo xam ne bu ngeen dee wax daf lay conseil di waxtaan ak yow ci lu bare bare bari démb vraiment waxtaan bu neex ca Lagros ndogu neexoon na mais la ma ca gën a intéressé rek mooy leçon ya ca Souleymane Faye joxe ca way ya mhm, ak mën a joxe leçon na seeti sa mbokk yi ñu sàng la la wax mhm. après na nga déglu son yi bu ay leçon lay doon eh, la la <laughs> dëgg la di nekk <laughs> international ci musique sénégalaise mhm, dëgg la yooyu xibaar yi mujj euh, record ñoo ko fësal amaloon. Mhm. Euh, mu daal di ndar képp tey lay tàggatu. waaw alhamdulilahi rabbil alamin rek sant yàlla bu wax julli ci mhm. sangu-sangi sallallahu alayhi wa sallam nabil Mustafa mhm. di ñaan jàmm ci àddina bi di ko ñaan ci sunu réew mi nu ne muy Sénégal di wax que ne rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñu suivre ci Equivox TV rek ak foo mën a nekk rek di la wax ne amuñu seen fay rawatina nag fans club Babacar maa ngi leen di béggee 100 pour cent Babacar boobu ma leen fàtte ñoom Grand Laye ñoom Jiga ñoom Saliou Sarr ñoom Bakary Ba Essa Seydi Baye Zal Paris fu ci waay nekk rek di bëggee Babacar jàppal ne Babacar la koy delloo di leen wax ne 100 pour cent boobu maa ngi ci tey maa ngi ci suba fu ngeen nekk rek jàpp leen ne maa ngi ci seen biir fu ngeen nekk man ngeen fa nekkal seen taxawaay rafet na lool mais di nuyu tamit Mass Ndiaye waaye tamit soppee Babacar ak Vox Arena tamit du ma leen fàtte ñoom Cissé ak ñoom Arona Camara ñoom ñëpp ñu ngi fi di ñu jàppale ci liggéey bi di ñu encouragé mhm. kon ñooñu vraiment mhm. mention spéciale Ami Diouf. Mm. di la ñaanal jàmm. di ñaan yàlla yàlla yàlla def ba bu koor gi jeexee rek nga am borom kër bu baax bu la nopp yërëm man loolu nekk sa déwén am borom nan soxna. waaw ba pare rek. ma am ba pare mm-hmm. yàlla nangu ñaan. baax na voilà fa la ñuy daal di yemale xibaar yi tey rek di leen jox dig daje ma reetaan loo. <laughs> lundi incha allah jërë ngeen jëf. incha allah. moom tamit mosul am adversaire bu mel ni man. bu dee xee maa daax bu dee bëre maa daax